bu baax a baax di ko alors moom moo ngi def liggéey bu rafet rafet bravo à toi liggéey bi ngay def Sénégal askan bi ñëpp ñëpp ñoo ngi koy rafetlu reportage yu exceptionnel donc alors merci beaucoup alors mais Ouz euh, bi si c'est nañ dem déglu xale bi jigéen bi euh, reportage bi nga xam ne def na ko ak ki nga xam ne mooy guy gi ñu ñaar si bi gën ko faram fàccee. man bëgguma dara mu ñaar entre sama man ak sama doom ñu la bëggul boo nee ñu sa doom mën nañ ko gëmloo leneen ñu séparé la yow ak sa doom. ñaata weer la le 30 bi la am cinq mois. 30 avril la judd. Euh, rapport ak li xew nii lépp ah, euh, euh, ndax jàppoon ni yow tamit da nga def erreur en tant que xale tey boo demee bay nekk ak góor mu def la comme jabaram pendant 3 ans wala pendant 4 ans donte ñàkk nga way jur sa papa xelam neexul say mbokk abandonné lañ mais en tant que xale. Euh, bu waxtaanee ndax jàppoo ni foofu tamit defoo erreur la fait que ngay abandonné say mbokk ñëw di nekk ak benn góor boo xam ne ni xamoo ko pendant quatre ba mu ëmbal la. loolu man la gën a métti ndax woo nag ko ba mu ñëw mën a ko caat fii doo fi fanaan moom li ñu nekk yëpp du fanaan si man kër xaritam lay fanaan man ak sama doom ñooy fi fanaan. bu yeewoo suba ñu ñëw toddaat fii ndax liggéey guddi sax la am mardi ak mercredi lay repos kër xarit moom amul woon problème boobu kër xaritam la doon dem di tëdd daa dem ba fin bi ba mardi bee passé mu ñëw mu ne fee dafa bëri nit fii la bëgg fanaan ma ne ko du fi fanaan na dem fanaan feneen loolu laa ko wax. jamono jii nii ba ci mbedd bi ngay benn fan la la fanaan ko fii. moom ay eh, mbokkam moom magam bu jigéen la nekkaloon magam bu jigéen moo ko jëlee mboore indi ko fii ndax amul amul doom bu góor moom la jëloo indi ko fii teg ko si boutique bi muy liggéey mu dem ba si digg bi mu commencé di caaxaan mu ne moom chauffeur la bëgg kooku fayal ko permis boobu na niil ndax kooku da leen arnaqué mhm. kooku defaraat ko beneen bu mu am permis waaye bu amee liggéey day jékki-jékki rek mu bàyyi ndax moom day caaxaar rek ku ko jox oto tey suba mu nanguwaat ko. jamono ji jamono ji lan nga bëgg euh, ci ku la ci dimbali wala lan nga bëgg ci koo xam ne nii mën na la ci taxaw lan nga bëgg en fait ku la ci jàppale. man daal man bëgguma dara mu ñaa entre sama man ak sama. alors noonu dégg ngeen ko euh, Ousse. Mm-hmm. histoire bi man day ful sama boobu sérieusement. <laughs> d'accord euh, dafa metti nga am âge bi nga am nii. Euh, su ma déggee mu ngi naan 2003 euh, la magam juddu xaw ma kon moom xaw ba ban âge la war a am ça veut dire que est-ce que am na 18 ans sax loolu question bi nga xam ne dinaa ko dima koy posé. Mm-hmm. même bu ko fekkee même fekkee am na ko sax sorowul foofu maanaam am na 20 ans ça moom gëw ma sax am na 20 ans ça veut dire que mm-hmm. suñuy waxee noonu maintenant euh, d'accord est-ce que tamit parents yi amuñu si pas de responsabilité Ousse. le fekk nga am sa doom bàyyi ko. ba dëkkul maanaam sa biir kër amaan na ko peut-être parent peut-être mën na wax ne wérul mais xanaa ay parent bu ñu wérul wala ñi génn àdduna ay parent am na ay mbokk am na ay nijaay am na ay tante am na ñeneen hmm. pour ñu bàyyi ko ba amatul feneen fi mu dëkk bay dëkk maanaam yi nga xam ni moom mooy kër faram. waaw moomoo euh, ñu ngi ñaan yàlla. Hmm. avant tout yàlla ñu yàlla suturaal. amiin surtout loolu. surtout loolu. yàlla nañu suñ borom suturaal. wallaay yàlla nañu yàlla dimbali. yàlla nañu yàlla di bàyyi ak sunu xel. Mhm. Ah, ñun nag ñu ngi ñaan yàlla buur xam-xam ba lu nu bëgg a def fekk nu xam ko bu wér a wér ah, balaa ñu ko def moo man nag dafa am ñaar yoo xamante ni li tax ma wax loolu. Mhm. lii tey mënoon na dal sama rakk moom mii di wax sama rakk la. Mhm. naam bokk ko ñu ndey ak baay mbaa wala déret waaye sama rakk la ndax maa ko mag magam sax maa ko mag waaw ah, magam maa ko mag euh, nde magam sax maanaam xanaa bu ma góorgóorlu am soxna bi juddu doom 2003 mu doonum sama doom mhm. hmm? wallaay ah, loolu euh, yàlla dogal na ko lenn nag dafa am mhm. euh, dafa ni waajuróomu góor wérut nangu nañu sa waajur wu góor bu wérut am nga waajur wu jigéen bu fi nekkul itamit nekkoon nga ci ay loxo nan nga def ba génn ci loxo ya benn ndax ci biiri wax ji boo duggee déglu ko ay yeneeni kàddu mhm. mu ngi wax waxi sama tànta fayal ma jàppale ma ne weer bi bu deewee nangam sàngam patati non non non moomoo fi nu nekk ci Sénégal bari na ñoo xamante ni dañ leen génn ca xàcc moom moo leen mag ñu ngi conscient melewu ci seen vie tranquillement te coow jibut bien sûr moomoo bari na ñu nekk ci mbedd mi du dund te ñàkkuñu fayda moom ci ay biir waxam boo dégloo int man tàmbali ba xëy na sax mais ci ay biir nga déglu lépp nga toog concentré xam ni kii dafa yabaate kii dafa réew man. def naa ko rakk ndax ba may tàmbali wax naa leen lu leer. Mhm. xam nga lu tax <laughs> mu bun bun bun bun bun fooyee booyu ndaw yi kii dañoo bëgg góor. c'est triste nga nga bokk nit. góor koo xam ne maanaam. waaw xamoo ko ngeen bokk quatre ans. si oh, benn gaale quatre ans est-ce que ëmbaluñ ko ay yoonu yoon sax ñu dindi ko. <laughs> wala mu nekk ci leneen. xëy na oh, bii rëcc. yow ñaata at nga nekk nit ki ba lii dal la ci. nga bu ñoo reeg mu moomoo ba pare yow nga nangoo taxaw ni yow nga nangoo taxaw ci xale bu ndaw ne da ngay def ay interview. ça sama choqué. nga nangu ci xale bu ndaw ne da ngay def interview ba pare nag ci biir interview bi. nga ñuy wax ku góor ki ni mu ñàkkee jom kon yow yaa ñàkk jom yow yaa amul jom. est-ce que est-ce que du maanaam dafa amatul solution. maanaam solution gis nga moomoo doo nekk ci lu la neex ci soq dugub ruq kacap pucub ñafal kuccal ñafal kaccal ba affaire yi nga naan ma solution solution ba mu amee yàgg na man benn ci ñun mun naa la ko wax xale bu ndaw. war na am vingt ans mooy liggéey sunu kër ñun ñii man mii de wax ak yow fa lay fanaan quinze jours ba quinze jours lay wàcc waaw ah, bëri na ci te bëri na ci ci ay kër mu ngi góorgóorlu bi muy ñëw kër ga def na fa ren cinq ans dafa am nu mu demee woon ci fameem ñiy boddi ko ay wax am ba mu ñëw kër ga fi mu ne ni yaayam day ñëw ba ci kër gi seet si ko baayam day ñëw ba kër ga seet si ko. noonu mooy jom. xale bu jigéen boobu kooku ki nekk ñun suñu kër wallaahi azim du caaxaan jéeya la tudd ma tudd turam fullaak faydaa ko may ak am lu muy jomb am lu muy bañ góor-góorlu nekk ci liggéeyam di góor-góorlu di góor-góorlu di ba ñi ko boddi woon tey accepté ko moom bu ñu jël ay mbir di ñu ko chargé. kii lum def moo tey moom la neex kenn saxalu ko lem kenn doxaana ko mu bañ bañ ko doxaanee dafa nangu moom moo xool ki mu neex dund ak moom ñu dëkk ay at ma waxaat la ko boo moytul ëmbal gi sax yàgg nañ <laughs> ëmbalante yaa ngi comprendre bii da cee raw feeñ mu jékki-jékki comme nee na ñun Sénégal dañuy toog dañoo bëri yërmande boo génnee victimisé wax jooy patal bët mun na bañuñ ko ci tàmbali bi lu ma la wax kii sama rakk la te munoon na dalit sama rakk waaye affaire yi nañ ko teg fi mu tegu yow boo demee ba doon xale yow nangoo jël interview di wax xam nga luy responsabilité xam nga luy woo internet pour wax ci. Mhm. ngir ram ñu jàppale la dofoo dina jàppale moomoo xam nga lu neex yow mi dem bañ ëmbal la mu saf neex ah, ah ñam ko ba naan. ay mbarar yi mbarara xam nga lu <laughs> saf xam nga lu cuqu <laughs> dama ne yow moom moo nañ bàyyi caaxaan yi en tout cas man man man bi waaw guy bu mu ko euh, quatre ans dund si biir kër gi yow ak sa far man loolu moom ma gën a choqué ça veut dire dund maanaam concubinage loo xam ne si ay tubaab la lu ma gën a choqué mm. amul jom non peut am na jom pexe moom yow mi yow mi xaw ma de mm-hmm. moom li mu wax lañu wax moom nangu na ni ku góor ki amul jom. waaw parce que nangu na ni dugal nañ ko pour métier. boutique lañ ko joxoon la njëkk a wax mu bàyyi ko fa. Mhm. font moom moo ni fontu bañ bàyyi ko fa jële ko ci boutique bi mu ne permis la bëgg day dawal ñu jox ko pour mu ut permi ba léegi. Mhm. ne tailleur. maanaam dugg na ci lu ne yow sa jëmmi bopp ku jigéen ki nga taxaw ne kii mais nag après nga bugg ñoo sonal tamit. waa boo duggee si koo xam ne hmm. lenn ah, amul jom moom génn rek. Ah? génn rek yow dugg nga benn yoon. Hmm. gis kii nangam sàngam nga nga suivre ñàkk xëy na sa xol mun la yóbbu foofu sax nga bëgg-bëgg bi di des ba léegi nga demaat mu mu defaat ñàkk jom nga bëgg ànd ak moom ba lii dal la ci yow yaa ñàkk jom. mais am am na sax beneen solution pour quoi yow fekk yow bëgg nga ko moom bëgg na la. ngeen dund au minimum deux ans si benn kër pourquoi pas sax yow nga dem sëy ak moom. deux ans. mais da ngaa warta dund. da ngeen warta dund. non waruñu lu la lew non non lu la lew lew na la lu la lew lew foofu bu fa du ma fa du ma la nangu sax <laughs> ngay ngay prononcé ay dëkk deux ans. dëkk amul dëkk non non non xam naa loolu du takkante. takkante du. d'accord naa mais dama ni. bo bo booy àgg maa ngi xaar ba àgg. <coughs> maa ngi xaar ba àgg léegi nag beneen dama ni. mais choix la laa damaa ne yooyu yëpp ay solution la maanaam mais quatre dafa bëri uus quatre ans nga dëkk ak xam ne une semaine waroo ko dëkk ak góor deux waroo ko dëkk ak góor man mii jubuma man jigéen bu bu juum di wéet ak man wala ngay dëkk ak man franchement ku góor su ma amee def lu bon léegi bu ñëpp melee ni uus fu réew jëm ci ngay wéet ku góor si mit ku góor est-ce ku góor góor yow góor góor bu wéet ak jigéen lépp may sëgg baaraamu tuumaam bi fu mu ko def rek a koy ñor. jërëjëf Ousse merci beaucoup. lu leer laa lay wax. Ousse merci góor bu wéet ak jigéen. moom nii lay def xoolal. loo ko wax déggula moom na fexe ba baaraamu tuumaam bi am fu mu dem. Ousse jërëjëf léegi bu ci paree pare na ci. jërëjëf Ousse jërëjëf merci beaucoup. merci kontaan <laughs> merci beaucoup kontaan na moo si yow. <laughs> alors merci beaucoup Marie Pierre Ndoumbé Guèye merci beaucoup ñu ngi nuyu baax a baax Dija Diop merci beaucoup à toi aussi. Ous yaa neen sa sa kii bi rafet na de wax na dëgg de. Awa Dione merci beaucoup à toi alors ñu ngi nuyu baax a baax encore une fois nañ la waxtaanee ki nga xam nii moom moo. da nga naan Dija a sa chéri. Dija Diop sa chéri. waaw a ngay ngay Toufa eh, déedéet hmm? goo de. te wax nga yow benn àggale. àggale moo gën ci yow. àggalil. waaw baax na. wala fu ne di naa la fu fu neex alors moo ngi noonu boo koy tax na di bu ñu paree foofu nañ dem si nga xam ne ni moo nekk Wally Barago Seck euh, gannaaw démb.